lislaamaa ngi jooy jugleen daalal ko ngi suux jugleen suuxat ko ni yàllay sabuur doo nga raamam yooneen sa soppe auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alimul hakim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi ñu bokkal borom bi nuyu di ziyaara di leen ñaanal jàmm yërmandeem ak xéwalam suturaam yàlla na ko borom bi tabaraka wa taala wàccee seen kaw te wàccee ko seen kaw njaboot yéen a ngi ànd ak Abdoulaye Ndiaye seen émission bi ñuy tuddee li fi réew mi di ko am ak yéen fii ci Mouslih TV dañ koy am marto gi jot ci waxtu wii tabaarakallaahu ah tey nag ñi bëgg a ñëw yéen ci thème boo xamante ne macha allahu képp ci ku ci nekk ci nun war na cee bàyyi xel ñu jëmale ko li nga xamante ne moom mooy yaay waaw mooy sunuy jur ndax mbokk yi yéen a ngi xalaat ëmb juróom-ñeenti weer ku ci nekk ci nun nay xalaat woy juróom jamono ba mu koy ëmb ci juróom-ñeenti weer nu mu mettee muy jafte tabaarakallaahu muy jafte waaye niki noonu fa tabaarakallaahu nga gis ko feebar da koy yomb day jékki-jékki macha allah tànkam néewi mu jëkki jékki fa tabaarakallaahu bopp bi di metti mu jékki-jékki mu jékki-jékki mu jékki-jékki tabaarakallaahu mettit ci kaw mettit googu nga teg sa waajur benn bis ñëw ko mu xaw koo gaañ fa tabaarakallaahu ak wasin nu mu mettee ñi yaakaar ni moom woy jur bu jigéen foofu la coonaam di yem de ñu ne ko déedéet coono gi yemut foofu de nàmpal nar ko cay fekk mu nar la nàmpal ñaari at mbokk yi ñëpp tëdd di nalaw ak nu nalaw neexee ma ne la ñëpp tëdd di nalaw ak ni nalaw neexee ngay jooyu guddi du nalaw ngay jooy guddi du nalaw tabaarakallaahu dina jóg uuf la nàmpal la ba keroog ngay nalawaat waaw da gis ndaysaan paa bi sax yenn saa yi jooy mën na koo déranger mu ko yow nag yow naxal sa doom ji kon lii xoolal li ay daj ci doom mbokk yi ba mu ne koo détaillé ndànk-ndànk nga jël li nga xamante ni moom mooy nga yàq ay yéreem ngay tuur ndox ci kawam di tuur dugub ci kawam mbokk yi muy fóot lay taay suba ak ngoon guddeeg bëccëg yaay du moroom tonte baatu kër gi baa yaay boroom waaye ndeysaan ñu màgg rek fàtte moo tax ndeysaan bu ma gisee góor goo xamante ni li tax mu génn ci këram yee yaay nee na yaayam moo jubaloo ak soxnaam yaayam sama yaay moo bëggul sama soxna mu jaral nga dem jëli apartement góor gu ko def dama ne la da ngaa ñàkk jom ah léegi yow sa yaay tey nga gis tey nga gis naqari deretam yow sa yaay tey nga gis ni moom euh, dafa bari wax sa yaay tey nga gis ni moom euh, dafa dafa laqal sa jabar sa yaay tey nga gis ni dafa fontoo sa jabar loolu wax ju yàqu la yow loolu boo ko waxee da ngaa ñàkk jom xalaatal démb ci ginnaaw tey sa soxna googu bu ñëwee tey. ba gis la bëgg la grâce ak sa yaay ndax balaa nga naan naan danga fay ne tey ni loo mën a men ci àdduna moom moo tax nga men ko tey moo la doon solal moo lay sang di la solal daj ci yow coono goo xam ne sa jabar gi ñëw tey sax ba mu tax ba mu tax mbir ya neex ba nga ne dafa yee yaay da ngaa gàddaayu dem jëli appartement yóbbu fa so yóbbu fa soxna si nga wax ne sama yaay daa bari wax sama yaay bëgguma bëggul sama soxna. ma ne bu la bëggu doon ba nga bis ba mu la wasinee la waroon toog sa kaw nga dee moo tax góor ñi bari ci seen faiblesse ci seen ñàkk xel fexe nañu ba seen soxna tëddale nag seen waajur dem ba jigéen naan la man mënut mënutumaa dëkk ak mënutumaa dëkk ak sa yaay ci biir kër gi parce que dafa maa soñal bëgguma lu ma togg mun a neexut xanaa tey nga xam ni sa yaay dafa soof waaye démb tabaarakallaahu gisoo ko woon am na jamono yooyu toll moo xam dangaa jàngi moo xam foo mën lislaamaa ngi jooy jugleen daalal ko lislaamaa ngi suux jugleen suuxat ko lislaamaa ngi ni yàllay sa buur doo sàkku yooneen sa soppe